lay gërëmee mais nag monsieur le ministre gannaaw bi ma la gërëmee man nag xam nga ne département de Goudomp moo ma sonal ndax tey nga fa ga réew mi yëpp par exemple tey yow yaa ko yore macha allah kon nag bëgg naa sama département boobu nga jàppale ñu ci bu baax a baax a baax a baax ndax li ñu fa manqué dafa bëri monsieur le ministre euh, maanaam dañu bëgg ñu dimbale ñu ci piste rurale yi parce ñooñu paysans yi ñu ngi koy jooy bu baax a baax. parce que fois dañ may yónnee ay doléances pour ma wax leen ngeen jàppale leen ay yoon. parce que tey y a gros villages yoo xamante ni mënu ma laa citer parce que ma temps bi permettre ma ko ndax 3 minutes laa am mais bëgg na ngeen gëstu département boobu monsieur le ministre bëgg nañ ngeen jàppale dëkk yi nga xamante ne ci monde rural bi particulièrement ak Goudomp ñi nga xamante ni amuñu courant ngeen jàppale leen ñu am courant monsieur le ministre jigéen ñaa nga fa di ci teen ba tey amuñu am na dëkk yoo xamante ne xamuñu lan forage ngeen dimbale dëkk yooyu ba ñu am fu ñuy rootee monsieur le ministre piste rurale yi soxla nañ ko bokkul dafa kaaw duma ko mësa noppi di ko wax ndax tout le temps gaa yaa ngi may woo bokkul dafa kaaw fexe leen ba ngeen defar ko ngeen am mu am ma mu am mujjantaan daal par exemple mais département de Goudomp bee kontoon na naatale pour que doléance o fo monsieur le ministre des finances et du budget euh, na département mu yaalon ko aɓe enclavé rinne hani bin ko département la kuwo mbelorin jang ko le fo mun ketan sate jamaɓe jeema silo soto e lakka juwol ɓe sa wulo kono e ka ɓe fenkele fof kaɓa mais bo ka soto eɓa funtandila ñaami dow baali yo kuwo kumbo bake pour ali yema koye silo to silo la kuwo mum mbolo kubalete alay sa tellement koye mulu yalon koye man fo raso lon ƴetta e robinet soto il fanat ko jiyo ɓi commoɓe ka jimi ñami robinet to alay sa tellement ko hôpital ol bi ambulance ol yem manque bakele malatol ni ɓe évacué lan ka batale par ce que na faale toujours fleuve o kapta euh, régional o tema mu yalon ko muka tambino kata mais naliyem ma koye le pont de temanto hade bi mba folale ga faale ko ten aliyem ma koye le pont de temanto man sey a ma koye jeela fo mum mbatina traversé sonoyano mbulu gatan kan namala ɗo évacué à sédiou par ce que wala mbe sédiou la région ne kono kon nag na temps bantale mbay kontoon na mbay tentu la mbay jay la ma lay gërëm di la sant bu baax a baax comme ni la ko Thierno Diop waxee waa boor a ak waa na nga yemale du yàgg incha allah trois mois Khalifa Sall président de la république léegi mu ñëw jël réew mi defar sama département de Goudomp Sénégal neex jëm kanam tàccu leen ma waay bu leen bàyyi Khalifa Sall seen nit la ah yéen tamit nag bu la soxal.